sëriñ Mayasine Oumy Dieng sëriñ Mayasine Oumy Dieng mi ngi gane àdduna ci atum 1865 ci dëkk bu ñuy wax Madinatu Munawwara Madinatu Munawwara bi nag ñi ngi ko gën a xamee ci Kër ma Madieng Kër Madieng mi ngi ci suuf si di Njàmbur ci région de Louga sëriñ Mayasine ummi Dieng doom la ci sëriñ Moor Madieng Faaloo ak ku ñuy wax soxna Oumy Sëy sëriñ Mayasine ummi Dieng benn doom la nag ci soxna Oumy Sëy mi amul kenn nag kum bokkal soxna Oumy Sëy mi bi matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Mayasine Oumy Majeng waajuram sëriñ Moor Majeng Faaloo moo ko jàngal alxuraanul karim ci kër Majeng googu ba mokkal alxuraan bi waajuram itam moo ko jàngal itam as lëf ci xam-xam bi mu jaayantee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci Mbàkke Kajoor la eggale am njàngum xam-xamam moom doomu sëriñ Moor Majeng Faaloo bi sëriñ Moor Majeng Faaloo moom di waajuram nitug lislaam la woon nitug diine la woon ku wëllërante woon nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim la ba sëriñ kër Madieng googu ba tax na laata muy génn àdduna tànk bu méttee métti daloon na ko te tànk booba ko daloon sax moo ko génne lii di àdduna métti métti tànk boobu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim demoon na seeti ko ca bim génnee àdduna itim sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim demoon na jaale ji ko kon ku woon nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim la moom sëriñ Moor Madieng Faalo mi waajur sëriñ ma Yaasin Umi Jeng mi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mas na wax mag ñi na leen bu fekkee ne am na kenn da mas sa donn moor ma jeng faaloo mii la ndax ab taawam mi ngeeg man kaamilu alxuraan bi mu daa wéttilikoo itim mi ngeeg man soxnaam su ndaw si mu dëkkoo woon itim mi ngeeg man kon bu fekkee ne am naa kenn ku ma masa donn moor ma jeng faaloo mii la ba tey digganteem ak ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim tànk boobu ko génne woon adduna ngirum metti metti mas na dal ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ci njaareem boobu itim fekk na sëriñ moor ma jeng faaloo mii leen wan tànk ba am na ci mag ñoo xam ni sax metti metti tànk demoon nañ bañ yërëm ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nàng faaw ca ngoon gi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ubbiwaat di leen wax ne tànk bi ma leen doon jàmbat de wér na waaye rasulullahi ak ñeenti saxaabaam ñoo ma seet si woon ginnaaw bu rasulullahi laalee tànk bi nag la tànk ba rees moor ma jeng faaloo itam ma nga woon ca délégation ba ndax bor ba ma ko lebaloon la ma doon fay si muy tànk boobu ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim seetee woon te lii bi mu koy wax fekk fekkoon na waajuru sëriñ ma yaasin ummi jeng génn àdduna muy sëriñ moor ma jeng faaloo mi ba tey itam diggante sëriñ moor ma jeng faaloo ak ku sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim waxoon na ne bu fekkee ne am na kum doon sëriñ moor ma jeng faaloo la soxnaam su ndaw soosu mu doon wax nag mooy soxna aminata loo sëriñ moor ma jeng faaloo moo ko njëkkoon a denc ba am ci benn doom bu góor muy ku ñuy wax sëriñ ahmadu muxtaar jeng sëriñ ahmadu muxtaar jeng moomu nag lañ tudde xalifa daarul quddus bi fi nekk jamono ji di sëriñ ahmadu muxtaar mba Mbàkke ginnaaw bu sëriñ Mor Madiang Fallou génnee àdduna lañ ko jébbal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim mu am ci ñaari bant muy Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke mi ko njëkk a wuutu ak Baara Aminata Lo boroom kàdd gi sëriñ Mor Madiang Fallou mi waajuru sëriñ ma Yaasin Ummi Jeng nekkul ko tuuti loolu tax na ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim dem na ay yooni yoon ci kër Madiang ngir di seeti sëriñ Mor Madiang Fallou sëriñ ma Yaasin Ummi Jeng moom itam waajuram wu jigéen di soxna Ummi Sëy ku teel génn àdduna la loolee génn àdduna itam soxna Aminata Lo mii meññ Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke booba ma ngi ci kër waajuram goog di jaamu suñ borom ci waajuram moom lañ ko jébbaloon itam ngir mu toppatoo ndawu sëriñ ma Yaasin Oumy Dieng kon sëriñ ma Yaasin Oumy Dieng itam teel naa am wàccuwaay sëriñ ma Yaasin Oumy Dieng ma wax leen nag lan moo ko indi ci yoon wi mu jaayante ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim nekk nag ab murit ginnaaw bu waajuram wow nekkee wëllëreeb ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim di sëriñ waalo ba sëriñ tubaa seexul xadim daa ñëw ay yooni yoon ci kër Madieng googu ginnaaw bu sëriñ moor Madieng Fallou génnee àdduna bu baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ñëwoon na ci kër Madieng ngir jaale si wólla réew wow di sëriñ moor Madieng Fallou booba itam sëriñ ma yaasin umi jeng mi moo magoon ci doomu sëriñ moor Madieng Fallou yi ginnaaw bu ko baax ki sëriñ tubaa seexul xadim jaale see waajuram wow sëriñ ma yaasin umi jeng jaayante naa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ci bis boobu ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xadim bëggee dellu war sëriñ ma yaasin ummi jëng dafa dajale woon njaboot gi ngir fas yéene topp ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim seexul xaddiim di ko xamal ne ma yaasin ummi jëng des fi sàmm sa waajur yu jigéen yi bañ muuru ba muri buñ muuroo ba muri nag nga doog a ñëw fekk si ma fi ma nekk waaye ndigal li daal mooy toogal ba ñi àndoon ak sa waajur wii di sëriñ moor ma jëng faaloo liggéey ba noppi mu wéy des nag dëkk ba di sàmm ndigal li ko ku baax ki sëriñ wax ba waajuram yooyu nag liggéey ba noppi booba nag daaray alxuraan ji waajuram wi yoroon moom itam moo fa desoon di jàngale ñeen fukki gone booba ña nga fa wala daal mbooloo mu xaw a takku daal booba ña nga ca daara ja sëriñ ma yaasin umi jag na jël na délégation boobu fa séena leen a indi ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci mbàkke kajoor waaye waa dëkk ba ñu ci woon ci sëriñ ma yaasin umi jëng yóbbaale seen doom yooyu waa dëkk boobu di kër ma jeng ñoom daal liñ doon xamal sëriñ ma yaasin umi jëng moom sax ab demam ànduñu ci ma yaasin jang mujj naa ànd ak mbooloo moom na ngir indi leen ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi mu jëm see mbàkke kajoor ngir ànd ak mbooloo moom ba tolloog dëkk bi di njeng jaw la ko ñenn ca dëkk ba di kër ma jeng dab di ko wax ne waxoon nañ la sëriñ ma yaasin ummi jëng bul yóbbu suñuy doom ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim yow mii dem sax àndu ñi ci soo demee ba munoo ñàkk bañ a dem demal te ba fi suñuy doom ñenn ca mbooloo ma ña ko daboon jël nañ seeni doom sëriñ ma yaasin ummi jëng des ñeneen nag ca njaboot ga ngir fas yéene leen yóbbu ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci mbàkke kajoor ci dëkk boobu di njeng jaw bisub keroog fa la sëriñ ma yaasun ummi jëng fanaanoo nag mbooloo moom mu xëy suba waajuru xale yi ñëw jël si seenu njaboot sëriñ ma yaasun ummi jëng gonte nag ci dëkk boobu di njeng jaw fas yéenee dem nag ci dëkk bu ñuy wax xàncax xàncax googu nag fa la sëriñ ma yaasun ummi jëng fanaan guddi keroog xàncax jëng googu itam ñeneen ci waajur yi muy la desoon ca waajuru xale yooyu desoon nag moom ñoom itam ñëwaat nañ ci dëkk boobu nag di xàncax jëng fekk si ko fa nanguwaat kenn ku ñuy wax Balla Sène Balla seen moom nag la àndal fa yéene dem Mbàkke Kajoor ngir jaayante ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mook Balla seen xàncax jéng googu nag lañ fanaan bët set ñu xëy nag egg Mbàkke Kajoor ci yoor yoor bi ginnaaw bu mu yëgloo Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim xam na Sëriñ ma Yaasin Ummi Jeng ñëw na gisee nag Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ziyaare ko Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di ko xamal ne damal toog ca mbaar mee bi Sëriñ ma Yaasin Ummi toog ca mbaar ma nag jikko yi yoroon mbind ma daal macha allah rafet na lool te taaru sëriñ ma yaasin ummi jang nag mi ngi doon xalaat cim xelam ci bind lii naka lay def ba xamante ak moom ngir itam kooku gën koo mën a yokk nag lii di xam-xam loolu nag cim xelam dong nag la ko doon xalaat bi koy xalaat laataa muy noppi sëriñ tubaa seexul xaddim woolu na ko mu ñëw sëriñ tubaa seexul xaddim di ko xamal ne damal wool ma ceerno ginnaaw bu sëriñ ma yaasin ummi jang damee wooy maam ceerno ibrahima que dangaa am ganam ndéet maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne ko déedéet mu ne ko ah kay am nga gan kay sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di xamal maam Cerno Ibrahima Faati di ko wax ne nuyoo leen ndax ma yaasin umi jëng mii kat sa gan la te nag na ngeen fas yéenee xamante te boolo ba tax na maam Cerno Ibrahima Faati taawub sëriñ ma yaasin ummi jëng moom lañ ko tudde maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke itam lañ ko joxoon mu yar ko la ko waral mooy kóllëre googu leen sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim kajoor ci bisub yoor yoor boobu sëriñ ma yaasin ummi jeng fekk seeku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci mbàkke kajoor mu di mbàkke kajoor ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nekk nag wala réew maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ndax moom la ko seexul xaddiim booleel ba ni sëriñ tubaa seexul xaddiim jógee ci mbàkke kajoor ñëw nag fa séenee sanc si dëkk bii di daaru salaam ak tuubaa ñi doon sanc daaru ak tuubaa kii di sëriñ ma yaasin ummi jeng ci la bokkoon ba tax na bi sëriñ tubaa seexul xaddiim gisee dëkk bi fukk ak juróom benn ñim njëkkoon a yabal tim ngir ñu ñëw ci dëkk bu sell bii di Touba itam sëriñ ma yaasin ummi jëng mang ca woon ginnaaw bu ñu sancee dëkk bi itam ba noppi ñeent nit ñi sëriñ Touba seexul xaddim wóolu woon ngir ñu wàcc fi kaamilub alxuraan itam ñeent ñooñu sëriñ ma yaasin ummi jëng ci la bokkoon ci dëkk bii di Touba itam fi la muritoo fi la jote itam lii di ngërëmam laata ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim di dem ci géej gi itam jot na ngërëmam ba delluwaat nag ci dëkk boobu di guyaar jëng sëriñ Touba seexul xaddim woolu woon na ko ba mu ñëw mu di ko xamal ne de am na tukki tukki bu sori bu may waaj a dem waaye nag suñ boroom xamal na ma ne tukki ba duma ci ànd ak kenn waaye bu fekkoon ne am na ku ma cay àndal da yow mii bokk nga ci ñama war a àndal waaye na ngànnaay yi ma fa yéenee jëfandikoo ca xeex ba yow mii nag laa ko sas ngir nga defar ko ci la sëriñ ma yaasin ummi jang xamee ne nag kon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ay xalima rek lay wax mu dem defar lu tollook ñetti gaali xalima indil ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñetti gaali xalima yooyu la sëriñ tubaa seexul xaddim yóbbu ci bind ci ay xasida wala ay way ci xalimay sëriñ ma yaasin umi jëng yooyu la ko bind ndax moom la sasoon ngànnaa yim fas jëfandikoo ci xeex bi sëriñ ma yaasin umi jëng mooy ki koy tëgg kàddu yooyu ko sëriñ tubaa seexul xaddim waxoon ba sëriñ ma yaasin umi jëng dem defar ay xalima indil ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim mujj na am takk nekk nag ak tubaab bi ñu yóbbu ko nag ci réew mii di Gabon ba ci atum 1902 ci atum 1902 ci fukki fan yaak benn ci weeru novembre bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñibbisee jaar fi mu jaar ba ñëw ci dëkk bii di Sànnoosi sëriñ ma Yaasin Umi Jeng fekkaat na ko nag ci dëkk boobu di Sànnoosi ngir ziyaare si ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim xamal na ko ne ngànnaay yi ma tëggaloon de li ma ci jëfandikoowul bariwul Seexul Xaddim keroog jóg na ca jataay ba gaal ga génne genn xalima di ko wax ne ma yaasin ummi ja ngànnaay yi de benn bii rek laa ci jëfandikoowul ci diirub tukki bi sëriñ tubaa seexul xadim mujjee jóge sànnoo si jaar fi mu jaar ñëw daaru salaam daaru marnaan amaat fi takk-takk ak mbaaxaan ci coow loolu toppoon sëriñ tubaa seexul xadim ak mbaaxaan sëriñ ma yaasin ummi jëng bindoon na ci ak xasida jagleel ko mbaaxaan xasida ga ma ngi ko adressé mbaaxaan turu mbaaxaan joow wi la tënke xasida ga ngir di ci ŋàññi jëf jooju mbaaxaan jëf ku xadim coow loolu toppoon sëriñ tubaa seexul xadim ak mbaaxaan tubaab bi nag mujjoon na ci sukkandiku yóbbu sëriñ tubaa seexul xadim ci réew mi di gànnaar ci baneen résidence surveillée gànnaar googu sëriñ ma yaasin ummi dem na fa fekki fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ba mu eggee gànnaar itam sëriñ tubaa seexul xadim mas na ko faa jiiteloo benn yoon tisbaar gànnaar googu sëriñ ma yaasin ummi jëng toogu fa sëriñ tubaa seexul xadim jóge gànnaar ci atum 1907 ñëw ci yéen jolof ci yéen jolof googu itam sëriñ ma yaasin ummi jëng nekkoon na faa ku ki sëriñ tubaa seexul xadim ginnaaw ci jolof njaareem njaareem googu itam sëriñ may yaasin ummi jëng nekkoon na fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba njaareem googu sax amoon na fa kër ci gànnaar bi kër ga moo tolloog jamono ji kër sëriñ soye bu faal ci njaareem njaareem googu itam sëriñ tubaa seexul xaddiim la ko jébbale soxna ummi mbàkke njaareem googu itam soxna ummi nekkoon na fa ak sëriñ may yaasin ummi jëng ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba tax na sax soxna ummi mbàkke ci njaareem googu la génnee àdduna sëriñ may yaasin ummi jëng bokk na itam ci ñi nga xam ni sëriñ tubaa seexul xaddiim daana leen laaj léeg-léeg ba tax na itim daawul sori ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim sëriñ tuubaa seexul xaddiim itim joxoon na ko am maxtu ngir mu barkeeloo ko moom sëriñ ma yaasin ummi jëng ba nëg ni mi ngi ci kenn ci njabootuk sëriñ ma yaasin ummi jëng maxtu moom itim mag ñi daa nañ def su masaa maral wala ñu bëgg mu taw buñ ko génnee wékk ko ñaan ci daana taw sëriñ ma yaasin ummi jëng ku ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim la di ko liggéeyal saa su ne boole koog nag bëggul nag lenn lu metti ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim loolu itim taxoon na ku ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ràññee woon ko ci boppam ba tax na itim dëkk bu sell bii di Touba rawtina quartier bii di Touba Daarul Minnam bi ko ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim di sanc àndoon na fa kii di sëriñ May Yaasin Ummi Jeng mu nekk murit bu dëggal murit bu dëggal boobu sëriñ May Yaasin Ummi Jeng nekkoon tax na itim moo kii di sëriñ Baara Xari Faal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim defoon na ay bayit ci jëmm yooyu ngir di leen ci ñaanal ak njéggal ñu sëriñ ma yaasin ummi jeng ak sëriñ baara xari faal ngir ak njéggal ci suñu boroom rabbi بمن لكل خير جمع عني أجهز المريدين معه واغفر لنا ولهما معمما ولهما كن أبرا مقدما واغفر لوالديهما وارزقهما سعادة الدارين ولتكرمهما وزليا على النبي والآل وصحبه وكل من يوالي ñeenti bayit yooyu la ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim defoon ci sëriñ Baara Xari Faal ak sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng di leen ci ñaanal ak di ci ñaanal seen waajur ya loola itam taxoon na sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng nekkoon itam nutug suñ boroom nekkoon itam ku mbooloo mi àndoon ak moom yaakaar ba tax na itam ab taalibeem ñëwoon na ci moom moom sëriñ ma yaasin ummi jëng di ko wax na sëriñ bi dama bëgg nga dénk ma wala di ko dénk boppam sëriñ ma yaasin ummi jëng keroog ma ngay wax ak taalibeem ba ci bayit yam koy bind ne ko doomu aadama bi dafa war a topp boroomam di ko jaamu boole kook di ko liggéeyal su ko defee daal ku ko jege lay doon ka nga yaakaar nag jox ko sa bopp ñu tuddee ko sëb sëriñ saa lépp loo xam ne nii daal sëriñ bi la soxal bu ca am ak taaxeerlu dawal wuy ji gaaw soo ko defee daal da nga mucc ca sawara ak tàngoor wa ak saxaar sax jaamu nag sa boroom bu ko fàtte waxtu julli juróomi itim nag boole ko ca ndax ci la bokk ak soxor nag bu mu nekk ci yow saa su ne daal ak lawet nañ koy gis ci yow lawet googu itim na feeñ ci booy jëflanteeg doomu aadama yi ñeenti bayit daal ci la sëriñ ma yaasin ummi jeng tënk murit bi wala taalibe bi naka la mën a doxalee ngir mucc ci ndogum àdduna ak mu àllaaxira ñu teewlu ñeenti bayit yim defoon ngir jagleel ko taalibeem boobee ñëwoon doon ko wax ne dénk ma ñuy fàttaliwaale na nag bépp taalibe jamono ji ci nga bokk moo xam nga yaakaar sëriñ ma yaasin ummi jeng wala nga yaakaar keneen inna min al aadaabi ya muhammad liman nawa qurba li rabbin yaabud mujaabuka sayqa mata daaka bi suratin fa taatali sarwaaka kun saata baddurin li amri shayq tanju qadan min allahabi wa duuq aleykum bi sikkiri wa taallumi fi kulli ma waqtin wa fi taxallumi jeng nekkoon na bindkat ndax ku bind ay xasida yu takkoo takku la yii mu ciy tagg ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim yii mu ciy ñaanal ay taalibeem yii mu ciy défendre ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim yii nag mu ciy kañ suñu boroom am na xasida gum tudde yàllaahu yaasal xarsi yàllaahu ma ngi cay ñaan suñu boroom ak di ko ca kañ boole koog di ko ca jégglu ak di ko ca jéggluwaale mboole murit yim séqal ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim suñ boroom def yërmande ci réew mi wala ci àdduna bi xasida gu yaatu daal la sëriñ ma yaasin ummi jëng bind jagleel ko suñu boroom tudde ko yallaahu yaasal xarsi yallaahu ñu teewlu lenn ca bëyti xasida ga yallaahu ya rabbi yaasal xarsi yallaahu ya xaaliqan maa yasaau fi lkawni yallaahu fa ajis lil muridina anni usna xaatimatin wajal sawabahum ardan yallaahu xasida googu ngeen dégg nag ma yaasin ummi jëng moo ko bind ngir di ñaan ak njéggal ci suñu boroom ak di ko ñaanaale mbooleem jullit yim siqat lislaam ji xasida gi nag indi luñ leen léppi xasida gi ku fekk ba tey sëriñ ma yaasin ummi jëng ci mbindam ràññee nañ ci ay bayit yoo xam ni wala xasida goo xam ne nii mi ngi ko jaglee loon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw boo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci géej gi mujj gi tubaab bi doon na bind ay lettre di wax ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim génn na àdduna foofa ci gabon bañ denc ko fa bari na nag ci mag ñi ñoo xam ne nii gëmoon nañ waxi tubaab bi waaye am na ci ñoo xam ne nii tim defoon nañ ci ay listixaar yu wuute ñenn ñi moom maandu ci am na ñoo xam ni jortoon nañ ne li tubaab bi wax ay nar la sëriñ ma yaasin umu jëng bokkoon na ci ñi jortoon li tubaab bi wax ay nar la loolu itam taxoon na mu bind ay bëy ngir jagleel ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ma ngi koy wax ci biir bayit ya yow ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bul am dara looy ragal da nga mucc ci pexem nooni ma ngay wax ne kooku muy wax ne nag na mucc ci pexem nooni muy ku baax sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ay ngëneelam ak i mayam matale na fépp nag sëriñ ma yaasin umu ngi wax ci biir xasida gi di wax ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim li mu defar ci ab génération amul kenn nag ci góor yàlla yi ku defar lu toll noonu ci génération ba nga maasee loon mu ne ñi dajeeg sëriñ tubaa seexul xaddim te sëriñ tubaa seexul xaddim defal leen ay xéewal ci ñi ko jiitu amul kenn nag ko dajeeg ci ñooña ko am xéewal yu toll ne ñi ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim am ba tey sëriñ ma yaasin ummi jëng mi ngi giñ ci suñ borom ci biir xasida gi di wax ne amul bët wala nopp mu mas dégg wala bët mas gis ku mel ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci ay may yi ak tuskare nag ñeel na képp koo xam ne ni da ngay iñaane ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wala nga koy soxore te moom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim suñ boroom moo koy sottil ay ngëneel ak i xéewal képp na ku ko soxore tuskare ñeel na la képp koo xam ne nii nag naagu nga ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim du ñibbisiwaat xamoo suñu boroom ak i mayam ñu teewlu ñeenti di sëriñ ma yaasin ummi jëng defoon ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci bi mu nekkee ci géej gi te tubaab bi doon bind ay lettre di wax ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim génn na àdduna na ci Gabon wal mbakkiyu alladi ammat fawadiluhu wa huwa almusaxsiu anna kulla awjali jullun min aljili qad naalu bi rutbatihi ma naalahu gayrahum min sabaxi amzali wa rabbina ma raat aynun wala samiat xusnaani man ka ibni abdillahi mixdaali tabban liman yabtaxi islaalahu xafadan wa huwa almuqarramu inda alwaahibi alwaali man lam yakun yartaji ityaanuhu abadan ka annahu xaanitun min rahmatil aali ba tey ci liggéeyub sëriñ ma yaasin ummi jëng ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dajale woon na mag ñi di leen wax ne nañ ko tagg màggal magam jooju di maam moor jaara magi mag mag ñi moo nekkoon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ daam Ture sëriñ ma yaasin ummi jeng ginnaaw buñ bindee kenn ku ne ñetti way na ngir jagleel ko maam moor jaara magi mag ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi ñu noppee na sëriñ tubaa seexul xaddim tontu na leen ngir eggale xasida ga di leen ca ñaanaka kañ ñu lu mbind mi maam Ceerno Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru defoon ca magam ja maam moor jaara ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul faadin fadailahu jammun atayaahu bal axsa min addiyami tallahi lawlaahu kunna fi safa jurufin haarin walam yanfalab tamsin an il alami alhamdulillahi fi wafqi samaan bihi wa kaana zuduhu fi l orbi wal ajami sëriñ daam ture ginnaaw bu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bindee ba noppi moom itam sëriñ daam ture itam bind na ñetti way itam la jagleel mammoor jaara magi mag ñu teewlu ñetti way yi sëriñ daam ture bind moom itam ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim an lisayqin faqihi faa'ifun alamun yuuli nada walhuda walxayri maa niami zaaka almbakiyu alladi ma saala muqtafiyam nahju lmutiicu ufiya rusuli wal umami wahuwa alladi jawdahu bahrun yamuuju lana nawaalahu saatu faydin jamma kalqiyami ginnaaw sëriñ daam tura ñetti wayam yooyu mu bindoon kii di sëriñ ma yaasin ummi jangite moom itam bind na ñetti wayam ngir tagg Maam Moor Jaara magi mag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu teewlu ñetti way yi sëriñ ma yaasin ummi jëng bind ginnaaw bu maam ceerno bindee sëriñ daam ture bind ñu teewlu ñetti way yi sëriñ ma yaasin ummi jëng akrim bihi zaydan qad xaaza min salatin maa yajuzu lfikra an amrin wa an kalami in jitahu taaliban jasra al ataai tajid kafayhi kalwadi fi zakmin wa fi karami man dabuhu xawfu rabbi xaaliqin samadin muhyi layaali tabibil jahli wal faqami ginnaaw ñoom ñett ñooñu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sàkk woon ci ñu way magam jooju di Maam Moor Jaara magi mag ginnaaw bu kenn ku ne defee ñetti way ngir jagleel ko Maam Moor Jaara magi mag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom itam bindaatoon na ñetti bayit ngir mottali xasida ga sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ma ngi leen di wax ne ginnaaw way yii ngeen way Maam Moor Jaara magi mag yàlla na leen suñ boroom defal ay xéewal bisub daje xaddim yàlla na leen sori ñu teewlu bayit yi sëriñ tuubaa seexul xaddim bindaatoon ginnaaw bu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bindee sëriñ daam ture bind sëriñ ma yaasin ummi jëng bind ñu teewlu bayit yi sëriñ tuubaa seexul xaddim bindoon ngir mottali xasida ga jazaakum bi jazaa'il xayri su xidami wa qaadakum li muraadi bari sil xidami wa minhu utlubu fi daarayni jawsakum bi xidmatin yowma jullu naati fi nadami tiibu nufuusan bi haza wafraxu jazalan yajzikum xayru man yujza sul qidami ba tey ci liggéeyub sëriñ ma yaasin ummi jëng bind na xasida gu ñuy wax xamdan li rabbil anaami xasida ga da cay sant di ko ca ñaan ak di ko ci gërëm ci wanale gum ko wanale ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bam liggéeyal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim gërëm ko xasida googu ci juróom fukki way la toll ku dem ci njaboot gi daa ko gis bind na itim geneen xasida gu tudd xabdan li rabbil anaami xasida googu itim ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la cay sant ci ni ku baax ki sëriñ tubaa la seexul xaddim mën a defaree doomu aadama ak nim gaawee ci defar doomu aadama ak bu la defaree ba pare ngëneel yim lay sotti xasida googu itam ci juróom benn fukki way la toll ku dem ci njaboot gi itam daa ko gis am na geneen xasida itam gu sëriñ ma yaasin ummi jëng bind tudde ko laa saala saxin kum xasida googu nag dafa am ay taalibeem yu ko liggéeye loon indi loon ko àdd yéya booba ñu ngi ci liggéeyub jumaa ji taalibe yooyu ma ngi leen di wax ci biir xasida ga di leen wax ne bi ngeen ma liggéeyal da sedd na sama xol dana leen ca fay ay jafe-jafe itam da ca mucc xasida googu itam ku dem ci njaboot gi daa ko fa fekk ba tey ci mbindum sëriñ ma yaasin ummi jëng ci atum 1903 bi sëriñ tubaa seexul xadim ñibbisee ci géej gi te amoon fi takk-takk ak mbaaxaan ci coow loolu mu séqoon ak mbaaxaan sëriñ ma yaasin ummi jëng bind na ci xasida xasida ga ci juróom-ñetti way la toll ndax turu mbaaxaan jóob wi la ko tënke xasida ga itam mbaaxaan jóob la tudd ku dem ci njaboot gi daa jëng bind xam naa ne daal ku delluwaat ci kàggu yi ba xoolaan mbindum mag ñi daa xam ne sëriñ ma yaasin ummi jëng moom daana bind sëriñ ma yaasin ummi jëng sanc na nag ay dëkki dëkk ñu ràññee ci daaru guyaar jëng sanc na dëkk bu ñuy wax mbii bi mbii bi mi ngi ci wetu koso koso goog sëriñ muhammadan koso moom maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sanc na itam ab dëkk ci wetu mbar ñu koy wax buntu mbar ñeenti kilomètre moo dox digganteem ak mbar dëkk boobu sax sanc na dëkk bu ñuy wax daaru rat mi ngi ci wetu ñaaxeen ba tey sëriñ may yaasin ummi jëng sanc na ay daaray daara ñu ràññee ci daara ju nekkoon ci dëkk bii di mbir kilaan amoon na daara itim ci gosaas ci daara jooju sax la génnee àdduna ci atum 1937 ñu koy wax daaray 106 ak daara itim ca naaweel ak yeneen ak yeneen i daara yu jëmm ji ji sëriñ may yaasin ummi jëng sancoon ngir di defar ak di defare ñi ko ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim booleel ngir mu defar pare fa ni mu génnee àdduna ci atum 1937 lu fa ñor wala lu mu fa amee mu yit ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw sëriñ tubaa seexul xaddiim te mu jël léppam jébbal seex mu mamadul mustapha mbàkke di ko xoole waajuram wa xaadim rasuul ndax kadulul loolu sax mbokkam la ndax waajuru seex mamadul mustapha mbàkke moom lañ dénkoon sëriñ ma yaasin ummi jëng ci tuut tànkam sëriñ ma yaasin ummi jëng ku sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi woon xel la ba tax na tubaa seexul xaddiim rawatina ci dëkk bu seel bii di Touba ci ginnaaw buñ ko sancee ba noppi doyloo googu ko sëriñ Touba seexul xaddim doyloo woon tax na itam kii di sëriñ Touba seexul xaddim foboon na doomam jébbal ko sëriñ ma yaasin ummi jëng muy ku ñuy wax soxna ummi mbàkke bintu sëriñ Touba seexul xaddim soxna ummi mbàkke moom sëriñ ma yaasin ummi jëng dëkkoo woon na ko ba am naa moom ñetti bant ñetti bant yooyu soxna ummi mbàkke bintu sëriñ Touba seexul na kii di sëriñ ma yaasin ummi jëng kenn ka mooy soxna mariama jëng bintu sëriñ ma yaasin ummi jëng ak soxna ummi mbàkke bintu seexul xadim ñaareelu bant bu soxna ummi mbàkke am ak sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy doon wax sëriñ sax nun jëng ibnu sëriñ ma yaasin ummi jëng ibnu soxna ummi mbàkke bintu seexul xadim ñetteelu bant bu soxna ummi mbàkke bintu seexul xadim am ak sëriñ ma yaasin ummi mooy këm duppe woon xaadim rasuul ñu koy wax cheikh ahmadu jëng ibnu sëriñ ma yaasin ummi jëng ibnu soxna ummi mbàkke bintu seexul xadim kon ñetti bant yi la soxna ummi mbàkke am ak ak sëriñ ma yaasin ummi jeng ci ndigal lu ko sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon sëriñ ma yaasin ummi jeng ngir mu dëkkook soxna ummi mbàkke soxna ummi mbàkke moom ci atum 1924 la génn àdduna mag ñu denc mbampana ginnaaw bu soxna ummi mbàkke génnee àdduna ci atum 1924 kañ denc ci dëkk boobu di mbampana sëriñ tubaa seexul xaddim fabaatoon na beneen doomu mammoor jaara ñu koy wax soxna màggat mbàkke ngir laat ko sëriñ ma yaasin ummi jeng ngir mu wuutu fa doomam jooju di soxna ummi mbàkke soxna màggat mbàkke mbàkke bintu mammoor jaara magi mag sëriñ tubaa seexul xaddim jébbaloon ko sëriñ ma yaasun ummi jëng ngir mu wuutu fa soxna ummi mbàkke moomu soxna màggat mbàkke moom am na ñaari bant kii di sëriñ ma yaasin ummi jëng ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ mustapha jëng ibnu sëriñ ma yaasin ummi jëng ibnu soxna màggat mbàkke bintu mammoor jaara ak ku ñuy wax soxna loota jëng bintu sëriñ ma yaasin ummi jëng bintu soxna màggat mbàkke bintu mammoor jaara sëriñ mustapha jëng mii fa soxna màggat mbàkke am moo nekkoon juróom juróom-ñaareelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jëng ginnaaw sëriñ tuubaa mi jël njabootug boppam jox sëriñ ma yaasin ummi jëng jëlaatoon na njabootug sëriñ ma yaasin ummi jëng itam tàbbal ci njabootam jëloon na doomu sëriñ ma yaasin ummi jëng ju ñuy wax soxna bintu rasul jëng jébbaloon ko cheikh moodu mustapha mbake momom ngir mu dëkkoo ko jëlaatoon na baneen doomu sëriñ ma yaasin ummi jëng kuñ doon wax soxna busa jëng jox ko cheikh mamadul faadal mbake itam ngir mu dëkkoo ko ba tax na soxna busa jëng moomu am naa ñaari doom cheikh mamadul Faadal Mbàkke muy Sëriñ Mustapha Mbàkke Faliilu ku ñuy wax soxna mareema kunta mbàkke bintu soxna busa jëng bintu cheikh mamadul faadal mbàkke ba tey sëriñ ma yaasin ummi jëng kii di cheikh ma sàmba mbàkke miy rakku ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim yoroon na doomam ju ñuy wax aji soxna jëng sëriñ mustapha géey yar waaye tim yoroon na doomu sëriñ ma yaasin ummi jëng ñu koy wax soxna astu jëng bintu sëriñ ma yaasin ummi jëng sëriñ ma yaasin ummi jëng sëriñ daanu asan njaay dëkkoo woon nag rakkam ju ñuy wax soxna faaloo jëng soxna faaloo jëng moomu nag moo meññ sëriñ mbay faaloo bu sëriñ daaru asan njaay buur yàlla gi nekkoon njàmbur ñu koy wax sëriñ abdoulaye sëy mook sëriñ ma yaasin umi jang itam séq nañ lu yaatoo yaatu ci wàllu demlante ak fekk lente sëriñ omar jóob bu mbàkke bawal itam naka noonu sëriñ xamsatu jaxate bokkoon itam ci góor yàlla yi àndoon na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim itam sëriñ ma yaasin umi jang séqoon naag moom lu yaatu cheikh isaa jenn itam naka noonu daanañ demlante ka fekk lente cheikh abdou samat mbàkke ibnu ku baax ki sëriñ daan nañ demlante Cheikh Mamadou Lamine Bara ibnu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam amoon nañu relation ba kii di sëriñ ma Yaasin Ummi Jang tudde na ko doom Cheikh Mamadul Bachir ibnu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam amoon nañu relation bu yaatu ba ma Yaasin Ummi Jang tudde na ko doom xalifaam bii fi nekk itam sëriñ Sohaybu bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul la ko tudde sëriñ Baara Xari Faal amoon nañu relation bu yaatoo yaatu ba tax na ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xadiim boole na leen di leen dénk ci ay way xam naa daal ku bëgg lim ko sëriñ ma Yaasin Ummi jëng daa dem lante ka fekk lante daa juum ndax ñépp ñu loon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jàppe woon na leen nawle doomu sëriñ moor ma jëng faaloo ba ak soxna ummi sëy di sëriñ ma yaasin ummi jëng mi ngi génn àdduna ci dëkk bii di gosaas ci daara jam fa sancoon ñu tudde ko daara daaray 106 daaray 106 jooju nekk ci gosaas nag ñu ngi ko gën a xam ci tur wi di cagu daara jooju nag ci la sëriñ ma yaasin ummi jëng génnee àdduna ci atum 1937 ci feebar bu ko tëraloon mu dëppoo woon ajjuma fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ci atum 1356 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ci atum 1356 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 30 avril 1937 vendredi 30 avril 1937 ci daara jooju mu génne àdduna nekk ci gosaas ci alxamis ji laata muy génn àdduna ci ajjuma ji dajale na ña nekkoon ca daara ja di leen xamal ne rendez-vous bi suba la ca Touba naka te su xëyee lañ koy indi Touba lu ko jiitu nag ci mu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam demoon na ci armeer yu mag yi rëdd lu yaatu teg ca nag di wax ne bu ko kenn laal danañ xam lan moo ko tax a jóg naka te sëriñ ma Yaasin Ummi Jeng lañ fa war a denc biñ ko indee ci dëkk bu sell bii di Touba sëñ Mbacke Bousso moo ko jullee moo ko taxaw faw ci ndigalul xalifa général des mourides bi fi nekkoon di cheikh modul mustapha mbàkke ñu jébbal ko boroomam ca fa cheikh modul mustapha mbàkke rëddoon ci teewaayu cheikh mamadul mustapha mbàkke mi nekk xalifa général des mourides ak mag ñim séqaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim sëriñ ma yaasin ummi jeng nag ay xalifaam nii la tëddee ku ñuy wax sëriñ mbàkke jeng moo ko njëkk a wuutu ci atum 1937 ba atum 1940 ñaareelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jeng mooy ku ñuy wax sëriñ basiiru jeng jaatu 1940 baatu 1970 ñetteelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy ku ñuy wax sëriñ Moustapha Dieng moo ko wutu ci atu 1970 ba atu 1995 ñeenteelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy ku ñuy wax sëriñ Sam Dieng moom la duppee Mamor Jaara magi mag moo ko wutu ci atu 1995 ba atu 1998 juróomeelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy ku ñuy wax sëriñ Baara Dieng Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke lañ ko tuddee moo ko wutu ci atum 1998 ba atum 2008 juróom benneelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy ku ñuy wax sëriñ Abdou Khafoor Jëng moo ko wutu ci 2008 ba 2011 juróom ñaareelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy ku ñuy wax sëriñ Moustapha Jëng mu ndaw moo toog xalifa ci l'an 2011 ba l'an 2014 juróom ñetteelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy ku ñuy wax sëriñ Sohen bu Jëng moo toog xalifa ci atum lan 2014 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko ci toogaayu sëriñ ma yaasin ummi jeng tam sut magam yam wuutu ak waajuroom wa aw fan ak mboolem nag ñum séqal sëriñ may yaasin ummi jeng suñ boroom am na ko man na ko yàll na ko def sëriñ ma yaasin ummi jeng am na nag bis bu buñ koy fàttaliku muy li ñu tuddee ak màggal bis bi itim wala màggal ga itim ci dëkk bi di daaru guyaar jeng lañ koy defee bis bi nag amul bis fixe ci at mi bu ci njaboot gi waxtaanee ba juboo rek jàppal ko bis ndax xam ngeen na sëriñ may yaasin ummi jëng ci bisu fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar la génn àdduna te bis boobu itam dafa méngoog màggaluk fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar muy màggaluk tuubaa gu mag gi màggal gi nag jaar na ci dëkk yu wuutee wuutee ndax bu njëkk màggal gi daan nañ ko fàttaliku ci dëkk boobu di daaru guyaar jëng mu gi nag jële woon nañ ko daaru guyaar jëng indiwaat ko ci dëkk bu sell bi di tuubaa ko ci fàttaliku ci xilaaf ak gi di ko xamalaat ne dañ koo bëgg a màggalewaat ci dëkk boobu di daaru guyaar jeng dundalaat dëkk boobu sëriñ ma yaasin umi jeng sancoon ngir njaboot gi gën a xamaat dëkk boobu ne daaru guyaar jeng ci dëkk yi la bokk ñuy ñaan ci darajey maamu sëriñ moodu mustapha mbakke fàllilu di sëriñ moodu bu sa jeng yàlla na suñ boroom yokk ay leeram taas ñu ci barkeem te wanale ko kam doon liggéeyal di xaadim rasuul te lii di jafe-jafe réew mi tam na ko suñ borom saafara ci barkeem